الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي إنني قبل البرايا حبه شغل الجنان فهو أكلي وشرابي وقوتي وجناني إنني قبل البرايا حبه سغل الجنان فهو أكلي وشرابي وهو ديني وجناني جرجف مبوك تلسبيتاتر كوسي تي في نين باخ تاي نيغي في سي بوندو خادم الامه al khalifa Cheikh mohammedul Mahi yàlla fi yagg te ànd ko wer waye li ñu doon dooree suñu programme waxtu wu nek rek ni ñu ko ah, seede yaa ya na di waxe ni njabootu Mawlana Cheikh l'Islam ñoo suñu drapeau ñoo suñu lepp lepp lu ñu dugg rek nañ ci commencer waye tamit nañ fa jeexalee suñu yaay suñu xarit suñu lepp trondo mam assou jank bi nga xamne bes bu mag bi ñi def ki moo koy taxawu Seyda Ndeye de Niass Mawlana Cheikh Ibrahim tay ñu fekk la fi ngeen fasiyene and ak seen khalifa seen mak seen xarit Cheikh Mouhamadul Mahi fii si yoonu Gàmbi nan ngeen dundee yoon bi ak ni ngeen ko préparé. sant yàlla bu baax rek di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di jottaliku ko ci Mawlaana suñ sëriñ di sant yàlla ñëw rek pour gunge suñ xalifa ci ngan giñ ko xam ne ñu ngi ko ko oo ci Gambia. bañ ko ooyee moom tamit mu oo ay rakkam yëpp góor ak jigéen ak ay dëkkandooram ak ay muqaddami bayam ñëpp pour ñu ànd ak moom dem fekki soppe bàyyi nekk ci gambi ñu rafetlu ko lool kontaan ci lool di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci jàmm ñu fekk ña ñuy fekki ci gàmm ñu dellu si ci jàmm fekk dëkk bi ci jàmm yàlla may ñu ci ngërmaaneel baay ko ñaanal yàlla fan wu gudd moom tam mu ànd ak wér-gu-yaram mu àggali mission am ci kanam ay rakkam yëpp ak mbokki taalibeem di leen gërëm yéen tamit di leen sant seen taxawaay bu rafet ci lépp loo xam ne mu ngi ci pay bi rek yéen a ci taxaw taxawaay bu rafet di gërëm Seyda yaa Néné Thiam nga xam ne lu xew ci pay bi rek taxaw na ci sant na leen ngeen taxaw ci taxaw bu rafet di ñaan yàlla jox ko gërmaaneel baay ak yéen ñiy liggéey ak moom yëpp jërëjëf. incha allah kooku suma yaay di suma xaritu bopp bi di ko ñaane fan bu gudd bu ànd ko wér seen ak seen ñu jël si turu jigéen ñi kon allah rabbi xam dañuy daal rek continuer si ñoom si kilifa yi nan lañ dundee ànd fii ñu fas yéene ànd ak xalifa saahibul faydatu di ñaan ko commencé rahim ko لا الله أنا الله لا الله أنا الله لا الله أنا الله لا الله صلى الله على ما أنا فوق القمال فن سبي الله مرحبا أنا فوق القمال فن سبي الله مرحبا لا تنعس من كل مغوب القوم مرحبا سكر الخالد الأمان والأهوال مرحبا واو kon li ma ko waxee léegi rek sant yàlla euh, sëriñ bi dafa nekk euh, ni mu koy faral Euh, ñëpp ci lañ bokk rawatina nag comme ni nga ko waxee ci commencement bi ñiy toog ak moom ci basang gi euh, mbëgte bu rëy lañ am euh, ndax tukki bu njëkk a tukki dem Soudan ndam lim ci am tax na taalibe yépp kenn ku nekk bëgg na mu ñëw foofu pour ñu njukkal ko parce que njukkal bi ñëpp àndoon nañ ci ñëw ndaje fii njukkal ko waaye réew yi nga xam ne fayda bi foofu la bëmb kenn ku nekk dana bëgg pour mu ñëw fa pour mu njukkal ko foofu ndax kii ci tànki baayam rek nag la jaar ndax baayam moo waxoon ca mille année soixante et un Afrique aux Africains Afrique Africains mooy Afrique africain yee ko war a dundal ci tànk yooyu la jaar waaye am na yeneen yoo xam ne des na yum war a def muy lu génn Afrique euh, Kossy TV ca kanam ni ma ko waxee woon léegi ñi ngi leen di ñaanal euh, ngeen dem ba ay télévision yu bëri am ñi ngi sant aussi ki nga xam ne moo ko créé mu yaane ni som leen ci am ñi ngi koy ñaanal di ko sant ci itte bim am ba créer Kossy TV nga xam ne bokk na ci télévision yi fayda bi ñu ngi koy ñaanal bu baax yal na yàlla yokk ko tawfiq guddal fanam barkeel njabootam Mouhamadou Ba mu alaaji Abdoulaye Ibrahima Niass jërëjëf suñu bàyyi si Ibrahima Ndiaye nekk si Mahat alhaaji Abdoulaye Niass moom te lañu dalal nekk loxo ndeyjooru xalife bi si liggéey boobu noonu seen jiital Cheikh Mun Amina Ibrahima Niass foofu ci mahad bi Cheikh Ibrahim tey ñu ngi fa yéene ànd ak xalifa xaadimul umma fële ci Gàmbi ñu fas yéene ànd ak yéen yéen ñi nga xam ne yéenay loxo nday jooram fii ci kër gi waxtu wu ne bu ñëwee fekk leen ngeen toog ci bassan bi ban kàddu rek moom ngeen mën a am tey pour joxe ko ci ngan gi ngeen ànd ak moom ci yoon bu njëkk tey mu génn réew mi. Euh, jërëjëf dañuy sant yàlla bu baax a baax di wax ne ñu ngi nuyu jullit ñëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di leen wax ne am nañu mbégte bu mag a mag mag ci ñëw fii tey ci kër xalifa bi nga xam ne kër gi daanaka suñ kër la tëdd rek moo ñu fiy génne ñu nekk mu nekk loo xam ne lii euh, mu nekk yoon wax ne daf koy ziyaare ji réewum Gàmbi te ku xaw ku wax Gàmbi wax histoire bu mag ci maam El Hadj Abdoulaye Niass ak Cheikh Ibrahima ak Gàmbi mu nekk réew moo xam ne mi dëgg-dëgg daanaka war nañu wax nañu mën a war nañu mën a wax ne Gàmbi mooy na rek ndax ku xam taarix xam ne Gàmbi mooy Medina tey nag mu jóg ay tànk nemmeeku dem Gàmbi ngir yokk ca tànk yooyu nga xam ne ay maamam ki waay waajuram wu tedd wa Cheikh Ibrahima doon na ko nemmeeku taalibe yi nekk ci Gàmbi mu nekk visite boo xam ne bii visite bu am solo la boo xam ne bii moom loolu lay def ndax dafa xam ndono bi nga xam ne moom la doon ci ay maamam ak waajuram jël tànkam di ko di dugg fu nekk ci àdduna bi ngir maanaam jullit ñi ngir benn leen ngir fekk fépp foo xam ne fi fekk na fa maanaam ay tolof tolof ci wàllu maanaam e, ñàkk a déggoo wala jàmm ñàkk jàmm wala boog jokk ak mbokk mu dem jox tànk yooyu noonu la ko ay way waajuram bu doon defee. mom mo doon wax ne aru muridal bari li nusrati dini wa ubristu lil ji lil jiilil jadid misala mu nek ko xamne kitam qadimul umma la ndax Cheikh Ibrahima daf daf ko bàyyi xel daf ko doon daf ko bolé won ci ñi nga xamne ci bop génération bi nga xamne ñom lay préparer pour ñu mëna a jëriñ xeetu yalla Muhammad sallallahu alayhi Wasallam. kon tànk yu la jaar non koy ñaanal yalla yalla na yalla guddal fanam ndax ak desam ci aduna xeet xeetu xeetu yeb lay jëriñ Euh, waxuma la taali taalibaay ndax taalibaay ñoo jullit ñi xeet wi yëpp lay jariñ ndax Afrique yëpp euh, kontaan lañ ci moom ummal islam yi yëpp kontaan la ci moom kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla yóbbu ci jàmm ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm la nga xam ne moom la fay dox itam yàlla def ko def ko mu muy tànk jàmm tànk xéewal mu dellusiwaat ci jàmm defaat yeneen jéego yoo xam ne yi comme ni mu ni mu ko doon defee rek mu defaat ko ci ci ci ci ci ak sago ak tal te yàgg ci suñ kanam ak moom ca ñi ñi ko ñi koy ànd ak Kossy TV Kossy TV moom yaakaar naa ne mooy télévision eh, faydu bi ndax lépp loo xam ne li xew-xew la ci Kossy TV lañ koy seetaanee kon ñoom tamit yàlla na leen yàlla eh, taxawu yàlla yàlla yàggal seen seen seen seen kër gi te itamit yow mi nga xam ne tam yow bi tey ak ki nga xam ne moo sos Kossy TV ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale yàlla na yàlla barkeel seen liggéey Kossy TV daal Kossy TV faydu bi la constitué yu daal constitué yu Medina la constitué yu alamul islam yi yëpp la ndax lii yëpp alamul islam yi ñoo ci jëriñoo kon ñu leen di ñaanal di leen sant bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla yóbbu ci jàmm ñu dem ci jàmm fekk ci fekk waa Gàmbi ci jàmm ñëpp kontaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah loolu moo ñuy may jàmm gannaaw bu ñu rombee suñu bàyyi yu baax yi nga xamante ne guddi ak bëccëg ñu ngi toog ak Cheikh Mouhamadul Mahi Al yàggal leen fi. yàgg boole leen ak moom barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu àndaat ak ñeneen incha allah si dina interview jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla bu baax ñu ngi ànd ak ñu ànd ak euh, sëriñ bi si ndigalal Cheikh Zidane nee na ci am yebal ñu ànd président fédération daayira kër gi yëpp ak njabootu kër gi Cheikh mu ngi topp suñu gannaaw di ñëw pour ñu ànd ak kilifa gi pour dem fële sa xam ne mooy bi si invitation bu mag boobu ñu ko invité di ñaanal yàlla xalifa bi ak imam ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahim yàlla defal leen jàmm defal ñu ko ko mboolem taalibe yi allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim kaddu googu la ñuy wéyale rek ànd ko yéen ak zikar su am solo gungee leen ko xalifa saahibu faydatu tijaaniya ci buntu euh, barabu wajuram muy Mawlana Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Baay si noonu rek may ziaré sama soppé sama xarit Cheikh mohammedul Mahi ibnu Cheikh mohammedul Makki Ibrahima Niass tey nag turandoom lañ fas andé gungé gunge ko fële ci dëkkëb Adama Baro di gambi fekk fa talibé yu bëgg mo la nas Ibrahim incha allah rabbi lepp lu aju ci ngan gi rek da ngeen xam fepp fuñ toll incha allah jërë ngeen jëf yalla mi daan yonne yonne tul jëmam jafe teew sirul haqi ñëw na soodal baay baraama ay baraama baraama baraama ñay wi xàlla mabal doom jaa ma sob yi muñ leen xottu leen mbóot mi lii moo neex baay baraama lab leen ci pey bi te bàyyi bokkaale baay bu gudd loolu bokkaale day yëngal xaras da rekki may soob lanka waamee dox di askeej ci joona ngay dee xibaar yi sànq gaañi weddi baraam baay Ibou ne la dalee ci maam Adama ba ci Abdalaay li fi ma sa yëngu sabal baay baraam baay ma coob mu ndaw warloom gaa gën ay jaane si ngaangaan mahjoobi wattu leen nongoy sidi baraham yàlla yónni kamu daan yónni kookoo leen di waar kullu laa ki ñëw na soodaan jumaa ji rek ñu ngi toll fii ci martaba di siyaare eh, bu baax a baax taalibe yi soppe yi xarit yi yi nga xam ne moo nekk entre na baay bi eh, fas yéene ànd ak xalifa bi dem fële ci diwaanu Gambie waaye fekk fa njabootu Cheikh Mouhamed Nazir si njiital Baye Mbaye Nazir borom alquran ju am solo ji waaye di saaru bu baax a baax suñu papa Cheikh Mouhamadul Mahdi mi nga xam ne euh, yoon bi yëpp ñu ngi ko teg si loxoom si wàccaay bu am solo bi nga xam ne def na ko si ay plateau di ko ko si siyaare bu baax a baax waaye di siyaare borom Kossy TV Cheikh Seydou Tidiane na ci am liggéey bu am solo bi li nga xamante ne ñu ngi koy def rek ñu ngi ko amalee ci ndigalam di gërëm Seydina Aliou Guèye mi nga xam ne moo nekk fee ci Sénégal ngir ànd ñun ci liggéey bi Seydina Moussa bi tey ci kàddu gi ak Vieux Diop Ibou Diouf ne Ibou Diouf ne na jëmi xut bu bàyyi wax ñu ko doon sëqu tijaan nga ñuy iidoo sëti barahama xaatir naa ba këram say naa ni suukar ci biir meew Ibrahima Diouf takkal baay sëti barahama barahama barahama barahama baay baay baay baraama njar nga ba woy na wasam soo bari leer boo dee xam yi ñoo doon jabaraan sidi baraham ba yàlla déyoog seydi baraham cëmmul koog malakoot ku ko fekkee wutoon bul weddee ti baraham bëtam bu jekk ba bu ko xoolee ca kaw asamaan mulkook malakoot la ca biir wër na baraham baay bi neem wa day dàq saytaane te di roose leer Ibrahima ma sa baay moo de baraham ne mi limam tabam yaa ànd ma cobi muñ leen jibril taxal na kër Mahmoud Sidi baraham allar bay gàddaay ga ba ñu merloo baraham spectateurs yi kon fii rek la ñuy daal di yemandi ak yéen gannaaw bu ñu àndee ak xaadimul umma ak i interview ak réaction taalibe Baay yi si biir euh, buntu kër xalifa bi kenn ku si nekk rek ni nga dundee mbir mi ak bés bi fi mu toll si yow ngeen dégg ko waaye nag ànd kook ci kar su am solo soosu noonu si noonu rek lañuy ñuy daal di euh, duggee garas Nioro kon daal di jeexal euh, génn bi nga xamante ne ni ñu ngi ko àndoon ak Cheikh Mouhamadul Mahi al Khalifa yàlla fi yàgg te ànd ak wér incha allahu rabbi bu duggee si frontière u Gambie daal di àndaat yéen ci lépp lu am ci ngan gi ba nit ñi egsi ci biir hôtel bi ba nit ñi dalal ak kaddu yi nga xamante ni ay kaddu yu taalibe bàyyi la kenn ku ci nekk mbégte gi ñu am ak noonu mu nekk lu rëy loo xam ne dañ ko dund ak yéen incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kañ ngay ñëw donte kon ma xam ko ni kon danga ma fekk Saalum Sidi Baraham Seydem ko naan laaw yàlla ñu yëm ne fu ko neex lay denc mbootam siti barahama boobu la suñ maam jalla xasaayu dati gàddu mbaal ga takko jëlof jëm ci saalum siti barahama yi barahama barahama baay baay baay maam baay barahama yéenay liggéey fay ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV